ànd xel mu dal waa beneen boor ba kay la seen xel dalu jërëjëf mbokk yi si vous nous vous êtes en direct sur Dakar la première chaîne people et politique du Sénégal alors entretien spécial qu'on tous les samedis et les mardis à cette heure là ak sama yaay ji di Aïssatou Penda Diop la grande voyante a ci kanam tuuti nag la dugg ci deuxième bi man ak moom ci seet ak ñaan waaye balaa boobu ñu yeggalee actualité yi li ci des benn ponk la muy Madiambal Diagne mi nga xam ne journaliste xar kanamam loolu yëpp ay masque la mais li nekk ci ginnaaw Macky Sall yërmande la ak ak ak ak yërëm ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko est-ce que njàngat boobu nga am yaay. waa lu nekk mën na nekk parce que nit tamit man du ma jugé ci apparence am parce que li fi xew yëpp ay nit ak ko fi def. ma ne affaire politique la parce que man su ma gisee problème Ousmane ko tàmbali. ci problème Mamour Diallo la tàmbalee ci 94 milliards laa déggee ne Ousmane Sonko tàmbali naa am jafe mais début bi duñ ne Ousmane Sonko am na problème ak Macky donc bu ñu demee nag ba affaire bi commencé am ndëgër laay muy seetaan laa ne nag loxo yi dugg nañ ca nga raxasit boo gis ndox la woon bu ca mm. loxo yi bari rek moo tax mu tilim mais mën na bañ doon dara ci seen diggante mais question de politique moo taxaw donc en politique tous les coups sont permis bu xeex amee walla xastante am walla coow am loo jot dóor sa moroom. Mm. Madiambal kat xam nga lu tax loolu. parce que Madiambal côté pouvoir la àndal. loolu nëbbu ko xaj euh, ragal péete itam day xañe wërsëg. waaw dama ne ragal péete day xañe wërsëg parce que wane na péeteem fu mu toll. parce que am na journaliste yoo xam tey bu état taxawee da ngay da ngay xam ne dañuy fësal ne am na fu ñu féete. Mm-hmm.

liñ naan naar bu ndaw ba lu mu wax ca ca ca bite rek ca berkele ba la ko déggee ca naar bu mag ba kon bu amee lu mu waxee rek am na lu preuve am na lu tax mu leer lu mu wax donc bu demee bay bind ci Macky xam na Macky Sall côtoyé na ko jege na ko kon bu amee lu mu wax rek xëy na am na sentiment yu président Macky Sall di retard ressentir ci usmaan Sonko parce que ñëpp gis nañ keroog image bi doomu Ousmane Sonko jege Macky Sall lool war nga gis image boobu. mu doon lu jaaxal nañ donc Macky Sall nit la kon beneen nit tamit donc ci question politique nag bu xëccoo amee ku nekk da ngay dóor fu la saf rek ak fi nga yaakaar ne boo fu fëlee borom du dem mais ci anam bi ñu ko jàppee moment bi ci 2023 bi ci façon boo xam ne bu bu bu bu jéggi dayoo lañ ko di employé ci façon bu nga xam ne n'est pas démocrate façon boo xam ne amul benn démocratie ci noonu la ñu bëgg foqartee pouvoir Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko nag buñ ko bañal nii nit ku am pouvoir la nit ku yàlla may la nit ku yàlla baaxal la parce que Sénégal moom bu la yàlla baaxalee rek xeex bari ci sa kaw oto bi jiitu la ñuy corné waaye bi nekk ci ginnaaw kenn du ko corné te Ousmane Sonko fi mu nekk nii waxuma la oto bi métro bi moo ko yor moo koy dawal te bul jiituwul bu nekkul ci kanam kenn du nekk ci kanam donc moo tax lépp taxaw jërëjëf yaa booy mbokk xarit yi léegi nag dugg nañ ci ñaareelu partie émission bi wax ci li nga xam ne moom la ko yàlla baaxal lañ koy def muy wàllum ñaan ak seet ak jaaro bu rafet bii nga xam ne moom la takk sénégalais yëpp bitim réew sax ñu ngi laajte la ñuy def ba am ci yaa booy tey ci wàllum li la yàlla baaxal muy wàllum seet ak ñaan ak dimbali nit ñi ñi defar seen yaram tey fan nga ma indi waa ci seet gi damay jóge ci côté rab sangatu rab ak yàqu-yàqu ma dem ci côté protection kaaraange mooy nit ki nga xam ne lépp lu mu dugg mu yàqu amoo benn wéeruwaay tey damay wax ne damay jël sama exemple sama leader Ousmane Sonko mooy nit ku am kaaraange nit ko am wéeruwaay te kaar protection bi mooy protection mystique la mooy ci wàllu am cumbukaay ci wàllu wéeru ci yàlla ci yàlla yàlla nga nekk ci ginnaaw yàlla mu am wéeruwaay parce que nga tey boo boo boo toogoon chaise bi chaise bi amul wéeruwaay booy def ni di daanu. Mm-hmm. loolu protection moo koy may nit ak loo xam ne ci lu bon ak wax ju bon ak jëf ju bon ak bët bu bari ci nit làmmiñ bu bari ci nit loolu ku yàlla may kaaraange bu dëgër boo ko defee ci kàttanu yàlla am na ci loo xam ne du yomb mu yàqu mm. parce que sagam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla defoon ñuy fas ak fecc muy jàpp ñu liggéey ko mu jàpp kon amul koo xamante ni doomu aadama dangay dox yow kaaraange amoo ko mooy lépp lu ñu la def mën na la jàpp amoo protection lépp loo xam ne yaa ngi koy def boo ko tàmbalee du am réussite te loolu kenn mënu ci dara gis nga tey defaru fas ak fecc takk ak sangu ku ci jóg rek mooy dootoo am benn kaaraange te ku amul kaaraange doo tàmbali lu yegg doo commencé tam loo xam ne dinga ci am mbégte wala di nga ci jariñu di ci jariñu waaye du doon lool kon kaaraange boo ko amee dafay ëmb lépp loo xam ne sa côté dund ci côté cat ci côté yàqu-yàqu ci côté wërsëg ci côté ba say sarax ci côté kaaraange am na donc boo amee taxawaay am kaaraange bu dëgër te Ousmane Sonko kaaraange yàlla la njëkk am protection sunu borom parce que lii mu dund yëpp tey ay ay quarante jours wala 40 jours de grève de la faim loo kaaraange sunu borom maye na ko maye na ko doomu aadama ci baatin kaaraange ay ay ay ay tey doomu aadama xam yàlla may na leen ci baatin ñu ngi ci ginnaawam ci lu mu xam ak lu mu amul di ko ñaanal ay gémmiñ gu am barke yàlla xam na ko waaye gémmiñ ñu bari ci kaaraange ñu ngi taxaw di def di bind di maas di di fas di fecc ci côtéem pour yàlla defal ko wéeruwaay defal ko kaaraange bu dëgër te yàlla muy ñun tey sama wasi la tey Cheikh Mouhidine Samba Diallo mu ngi ko doon wax tey nee na am na noo xam ne doomu aadama mu ngi koy toggee bu yàlla amee taxawaay ci moom mooy ñun bu ñuy wër yàlla nañ ko seet suñu bopp te xam-xam bi doomu aadama am te fasul fecciwul wala jële ko ci alxuraan loolu yàlla moo ko mën kon bu la yàlla mayee loolu da nga xam ne yàlla ci ñun la nekk yàlla buñ ko wër dans le vide buñ ko wër ci asamaan si buñ ko wër ci suuf yàlla ñun la ci biir suñu biir donc yàlla mooy def loxo bi nga xamante loxo bu gudd la loxo en chaine kii day defal kii kii faj kii kii seetal kii kii bindal kii kii mansal kii kii toggal kii kii bayal kii donc yàlla mi ñuy wër mu suñu biir yàlla boo koy wër seet ko ci sa bopp mm-hmm. am na ci loo xam booy wër yàlla da ngay séntu ba sonn te doo ko gis boo xoolee sa bopp gis yàlla donc loolu wax bu dégg mm-hmm. wax bu bu xóot ci nopp bu xóot la mën a dugg mm-hmm. mais nopp boo xam ne sorewul dégg-dégg boo ko waxee du xam li ngay wax yàlla yëg-yëg la ci dundu doomu aadama yëg la ci dundu doomu aadama kon bu ñu waree yàlla ba am taxawaay boo xam ne fees na ci ñun dell boo ñaanee boo ne kun rek yàlla day nangu te yàlla mooy kenn ki nga xam ne moom la ñuy kennal day am jëmmam ji def ko ci ay doomu aadama yoo xamante ni lépp loo xam ne dañ koy defaree sunu borom da koy antal boo kafee dara wax ko sax donte danga kaa kafee mu doon safaan yàlla da koy dëggal te am na ñoo xam ne xam nañ li may wax. am na ñoo xam ne tey wolof dangay ngay parfois ñu ne kii borom làmmiñ bu ñuul la lu mu wax day am paa lu mu wax mu yàqu bu waxee li li nga xam ne mbégte la sunu borom da koy antalal bu waxee safaan yàlla da koy antal day dëggal waxam parce que am na lu sunu borom moo ñaale ci moom lu kenn gisul yàlla daa nekk ca biir nit ñooña te nit ñooña ñu ngi fii di dox ñu ngi dund ñu ngi ñaan ñu ngi lekk ñu ngi naan te nit ñi mënuñ leen ràmm ràññee ndax yëre jëmm parce que doomu aadama sénégalais africain day jàppe doomu aadama jëmm ak mbubb sekk yàlla ngi ci nit ñi am na ñoom yàlla ngi ci seen biir yàlla lépp loo fi gis mu fiy dox moom la lépp loo gis mu fiy baax moom la yàlla fi fi safaan nekk la nekkul seytaane fa taxaw mais lépp lu fiy baax rek yàlla moo nekk ci biir lool ba lool di dox. Euh, ma ne sangat bi mooy laal takk boo koy laal di takk. mooy sa lépp luy tolof tolof ak gàllankoor ci côté sunguf bu la nit laalee ci côté gàllaaj ci kaaraange laa wax amul lu muy fekk sa yaram te du ko dindi ci lu tilim ci loo xam ne yàqu-yàqu la ci loo xam ne bu ñu paree dañuy jublu lépp loo xam ne yàqu-yàqu la ci yow parce que balaa ngaa defal nit kaaraange da ngay dindi lépp loo xam ne yàqu-yàqu la ci yaramam ci wàllu côté wërsëgam ci lëndëm lëndëm ci côté yaramam nga digtal ko ci sarax boo paree nga doog a jublu ci côté moom ci boppam ci côté wërsëgam ci kaaraange mooy nga mu nga defal ko wéer waaye mooy obstacle boo xam ne diggante moom jinne seytaane ak rab bu bon da ngay def baaraas seen diggante ba tax duñ ko atteindre waaye moom it da ciy ànd ak di moytuwaale parce que bu ñu la defalee benn obstacle na nga fexe yow bu ko dépassé li nga xam ne mooy gàllankoor tam bañ a dépassé obstacle bi ñëw fekk si la moo tax baatin c'est très compliqué art que ñenn ñu ko mënta comprendre duñ ko xam jërëjëf hmm. uh-huh. bàyyi la rek ñu tàggoog sénégalais yi ñu doon seetaan ci Feeling Dakar rendez bi nag mooy incha allah ëllëg ak jàmm muy mardi bii di ñëw incha allah ñu war a janowaat man ak yow ci euh, télé bi en direct ci filing Dakar. tamit di nuyu sama doom ji bi taalibe Serigne Saliou bu mag bi robb bu yàññi bi moom moo ci génn. moo moo fa waa ji bi ji bi waa moom sarak baax gën riche robb yu baax yi. Dior Sarr nga xam ne moo nekk pharmacie euh, croisement marché golf moo génn ci make-up yi euh, ki nga xam ne tam mooy yaama skin care sama doomu ndey ci teint yu baax yi collagène yi waaw dafay gën a si sa yaram fekk sax doo xeesal yenn xees yi mm-hmm. parce que boo nekkee nit ku xees du soxla ngay def effort yu bëri bu dee tam da nga am teint noir luy am joxe éclat sa yaram collagène yi diw yu baax yi ñépp lay jox ah, boo naanee ci collagène yow góor